ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تعد ولا تحصر وجعل لهم يوم عيد سعيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وضاعف فيه مواهب الإنعام على العالمين أحمده وأشكره جمل العيد بالسرور واوجب فطره وحرم فيه الصيام واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وسع موائد الرضوان الا من صرح صدره بالاسلام واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله سيد الانام ومسباه الظلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته يا معصر من كنتم بالأمس صائمين لقد مضى عليكم شهر وأنتم في جهاد كريم وطاعة مستمرة لله عز وجل تجاهدون شهوات بطونكم وفروجكم وتصبرون احتسابا لربكم على الحرمان المؤقت منها لقد صمتم رمضان ايمانا واحتسابا وصليتم لله قانتين وعبدتموه خاشعين فتقربتم إليه بكثرة تلاوة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار وأكثرتم من البذل والإعطاء والإحسان وأخرجتم زكاة فطركم للمستحقين وقد جعلها الله طهرة للصائمين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 محتار أحمده وأشكره ألا ما أولى من جزيل النعم وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله عظيم الإفضال والكرم وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما هلل محلل وكبر مكبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ربكم wa taawanu ala ma fihi xayrun lakum wa nafun wa saadatun li awtaanikum wa xaafidu ala aadaabi diinikum wa raaqibu allaha fi awlaadikum wa nisaaikum wala tuhmilu tarbiyatahum wa suunu axlaaqahum mimma la yaliq wa jannibuhum mawaaqi'a alfusuuqi walfujuur وزودوهم في كل حين بالإرشادات النافية والنصائح الغالية مروهم بأداء الصلوات الخمس في الأوقات وسهود الجمعة والجماعات والمحافظة على سائر العبادات وأحسنوا إلى نسائكم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء خيرا ويأمر الرجال أن يعاصروهن بالمعروف ويقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وعليكم ببر الوالدين والإحسان إليهما وأحرصوا كل الحرص على رضاهما فإن رضا الوالدين سعادة في العاجل والآجل واحذروا غضبهما فإن غضبهما شقاء في الدنيا ووبال في الآخرة وعليكم بإصلاح ذات بينكم وصلة الأرحام وإطعام الطعام وإفتاء السلام والتمسك بمبادئ الدين القويم والتخلق بأخلاق القرآن العظيم والاهتداء بسنة النبي الرحيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وحاسبوا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 jamono ju nekk ci ñun at mu nekk mu ñëw ñëwaat bés boobu mooy lan yàlla mooy indi koor leen wóor leen yonante bi wax ju nan lañuy woore nan lañuy woore suumu li ru'yati lxilaali woor leen parce que da weer wi gis ka wa aftiru dog leen lu tax ngeen di dog parce que da ngeen séntu weer wi gis ko fa in xumma bu asamaan si amee niir ba mënu leen gis weer wi fa akmilu iddata shaaban thalathina yawman kon da ngeen mottali weeri fan weeri fan loolu moo tax ñu war fan weeri fan séntu nañu gisuñu woor nañu fan weeri fan te nag ñuy wax nit ñi ne koo koo bokkulul moom sowu jant mënuloo wóorandoog moom koo bokkulul sowu jant mënuloo wooro ndoog moom mënuloo moom lu tax parce que koor yeggul timis bu fajar xaree jant bi so koor yeggul timis bu fajar xaree ba jant bi so bu jant bi sowee rek dañuy dog fa la koor yem yàlla nag bi mu ñu andilee koor ñun ji nga xamee ne gëm nañu ko gëm nañu ne mooy yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ñu ci Muhammad digal suñuy sëriñ su baax si digal ñooñu ko loolu yëpp def nañ ci li ñu mën ba yëg si ci bésu tey bii mu nekk bés boo xam ne dafa araama or kenn waru koo or bésu tey kenn du ko wor ku ko wor doo am tuyaaba bàkkaar ngay am parce que yàlla moo nekku ci kenn wor woor nañ ko def nañ ci liñ ci war a def génnee nañ ci sunuy mooru koor kon tey jii lan lañu def si tey dañu ñëw julli si julli si yàlla lu mu def lu nekk rek dafa am lu tax ñun ñëpp dañu war a xam lan moo tax yàlla digle julli ginnaaw bi ñu gëmee ne mooy yàlla gëm luy lislaam gëm julli juróom gëm dem màkk gëm woor gëm joxe azaka lenn lu ci nekk dafa am lu muy dox julli li muy dox mooy ñu ñi toog ci jàkk ji yépp ak feneen fu ñu jullee fu mu mën a doon fii machine kuy julli ku nekk booy kàbbar doo wax sa làkk allahu akbar ngay wax kuy jullit ku mën doon ak foo mën a julli booy kabar allahu akbar ngay wax soo waxee allahu akbar ba pare am na ñoo xamee ni dañ naan tek ba mu yàgg ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin lu tax parce que bismillahi rahmani rahim ñoom dañ ko dul wax ci kaw waaye bismillahi rahmani rahim ëpp na nit di julli te du ko wax liif gi nekk ci bismillahi bokk ci wa tuwilal baaw bi bismillahi taazuman wa rifatan lillahi liif googu ñu teg si bokkul ci baa bi màggal yàlla yëkkati yàlla xam ne amul kenn ku mu yemal moom kenn rek mooy ki mu doon moo tax ñu yëkkati liif googu te lépp loo xam ne dañ koy commencé te ko muñ ci ñu ko bismillahi rahmaani rahim dafa mel ni ku jënd xar te amul genn ku nekk xam ne na am xar li koy rafetal mooy genn ba kon képp koo xamee ne ki da ngay julli te waxuloo bismillahi rahmaani rahim teguloo ko fen te boo demee béykat na nga bokk ci a seex dañuy wax ni booy jàng faatiha bi sax bëgguñu nga tax ne wax ne bismillahi rahmaani rahim taxaw dañu bëgg nga wax bismillahi rahmaani rahim milhamdulillahi rabbil alamin soog a taxaw mi milhamdulillahi rabbil alamin nga soog a taxaw liaison boobu ngay def sooy julli léegoon nga wax bismillahi rahmaani rahim yi déedéet bismillahi rahmaani rahimin alhamdulillahi rabbil alamin nga soog taxaw parce que dafa am lu muy jariñ ëllëg ci àllaaxira kon képp koo xamee ne kii ci tarixa bi wax nga bokk loolu war nga ko booy julli noonu nga ko war a di jànge lan ñu ne ñun ñuy toog fii ne dañuy julli dañu war a ragal yàlla asalaatu tanha anil faxsaai wal munkar lu salte lu ñaaw lu bëggandi liy dindi personnalité nii ñu dindi dignitéem luy tax fu mu wax ñu ne ñëpp daw lu bon lu salte lu mu mën a doon xeex añaan soxor yooyu yëpp kuy julli waroo ko def képp koo xamee ne yaa ngi julli te mën a yéene yëkkati ngànnaay dóor ko nit wala wax lu bon jëme ko ci nit tey nga li ngay wax lépp teguloo ko fen ci sa xelaatu bopp nee nañu rek ngay wax loola ku koy def julleeguloo kuy julli du fen kuy julli du añaan kuy julli du soxor kuy julli dafay am respect ci way way juram lu tax ndax yàlla moo wax ne wa qada rabbuka an laa taabudu illa iya wa bilwalidayni ixsaanan imma yablughanna indaka alkibar أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا baay ak yaay lu doom mën a toll fu mu mën a nekk lu ko yàlla jox ci daraja dafa war a màggal baayam ak yaayam waru leen a dayadil ba am keneen ku ko jaral leneen lu mu jarul lu ko jarul ñaari way juróom ab sëriñ bu mu mën a doon boo ko lan topp di ko defal li nga koy defal na fekk yaa ngi koy defal sa way jur ba pare amu fi benn sëriñ bu am aljana aljana benn sëriñ amu fa place sëriñ lan la mën a wax taalibe li ñuy wax def ko pour bu ëllëgee nga mun sobe parce que moom xamul fan la jëm ëllëg ku xamul fu mu jëm ëllëg mënul wax kenn ne dinaa la yóbbaale kon kenn ku nekk yaay yóbbu sa bopp fa nga jëm ëllëg te yàlla mën na baale bàkkaar bu nekk ba mu des bàkkaar bokkaale ku jël yàlla utal ko yàlla comme moom yàlla mënu ko baale moo tax mu ne qul wa allahu ahad allahu samad lam yalid yàlla kenn la allahu samad mooy teen bi dul dëy ku fi yor loo mën a yor lu mu ma toll yàlla la ko jox te la muy joxe yëpp amul lenn lu muy wàññi ci li mu yokk dara lu muy wàññi amu ci te daf ñu yoon yu bari yoo xamee ne kenn ku ci nekk war nga cee mën a gëme yàlla ñun ñi ñëpp dañuy judd ku jigéen dañuy jur bi ñuy judd ñuy bopp mooy jiitu ku nekk xam na ne bopp xajul ci kanamu ku jigéen bopp xajul ci kanamu ku jigéen te fa lay jaar génn te mooy jëkk génn kon kii nga xamee ne mooy tax ñu judd du kenn moom la bu doom juddoo ki koy xiirtal ci ñu jox ko weñ mu xëcc a naam du kenn moom la du baay du yaay kooku boo ñuy topp di ñu topp di ñu topp ba ñu majeur mu ne doom bu amee juróom-ñaari at buy julli na ànd ak moom bu demee ba am fukki at bu julliwul na kay duma duma ndànk lu tax parce que dañu bëgg mu tàmm bi muy ndaw te it bàyyi amul warul am sañ-sañ dem banaan sama doom mënatu mënatuma ci moom dara doom feeg bàyyay baayam baayam dafa war a taxaw ci ni mu baax te nag li xew ci dëkk bi dafa mel ni xale yi amatuñuy ndey amatuñuy baay ay jàmbur ñoo leen di génne ci mbedd mi ñuy def lu kenn xamul lu mu doon kenn xamul li ñuy def lu mu doon seen i seeni ak seen di dund te loolu yëpp responsabilité boo xam ne bu ëllëgee yàlla du ko laaj kenn seen i way jur la koy laaj moo tax mu ne doom na topp way juram ginnaaw bi mu nangoo ne yàlla mooy yàlla nangu ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni bu demee ba nga xamee ne kër gi sax moo ko yor mooy indi dépense mooy joxe lu nekk nee na buy wax ay way juram na wax ndànk bu mu wane benn yoon na maa kër gi oof bu ko doom wax benn yoon baay bu ko doom wax benn yoon yaay doom bu mu gëdd benn yoon papaam doom bu mu gëdd benn yoon yaayam moo tax ñi ku xàmmee ba am nit koo xam ne kii woy juróom dafa génn àddina su mënee jullee néew danga nga naan ko jiiteel sa yaay wala jiiteel sa pap lu tax parce que bu ko jiitee yàlla da koy yóbbu aljana direct parce que yàllaa ko wax yàlla moo ne waqul lahuma waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira yàlla yërëmal sama baay ak sama yaay nañ ma daan yërëme bi ma nekkee ndaw kon doom bu taxawee ci kanamu pàppam di ko ñaanal yàlla lu mu ñaan yàlla jox ko bu taxawee ci kanamu yaayam di ko jullee lu mu ñaan yàlla defal ko koo xamee ne kii loo ñaan yàlla def ko war nga xam say waajur ñooy ñan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 bu ñu koy wax ne diw dafa am xam-xam mooy lan résumé la lu ñu lu ñu résumé la résumé bi lan la xam na xàmmee na mag ñi daawuñ jàng lu jeex lu xaaj lu ñu am rek lañ daan jàng mais topp yàlla lañ daan topp yàlla ba yàlla di leen defal loo xamee ne lii lu ñu def mu dëppook lu yàlla bëgg bi himmatin aw bi xaalin loolu la leen yàlla daan joxe li mu leen daan jox te nag loolu ku koy pour nga am ko da ngay yàlla def la say morom te gis ngeen képp koo xamee ne yeggaguloo ci tax wallahi doo kenn te nag nuñ koy firee ñun mooy jomb jomb naa nangam jomb naa nangam pour nit yegg ci foog dafay gëm yàlla gëm yàlla gu wér loolu mooy tax mu mën a am jomb te nit bu jombul dara lu ko neex def moo bàyyi may ñooyam yal na yàlla defal ñu tawfiq yal na yàlla dolli ñu sutura am na nag loo xamee ne waxoon naa ko nee naa woon ne ñiy julli si yëpp bu nekk booy ñëw na nga ni mille francs xam ni ngeen ko joxe ngeen koom déet gouvernement bi ñiy julli si bokk ci gouvernement bi yëpp nañu ndiwaale seen wàll nañu tànn kenn jox ko ko sama jumaa ji xooluma ku joxe ca Tiwaawan sama ci sama jumaa ku ci julli rek ma jiital nag ma jox dara ma boole ko si li may joxe yóbbu léegi ñu ñaan dégg ngeen li ma wax bu baax wax na ñu ngi nuyu président de la république ministre de l'intérieur ambassadeurs yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu institut islamique le directeur bi ñu ngi koy nuyu collectivité lébu grand sëriñ ak ñi moo àndal ñëpp ñu ngi leen di nuyu ak man man ci laa bokk waa grand mosquée ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ñaanal seen taxawaay rafet na ah sama xaritu bopp tam maa ngi koy nuyu yéen ñëpp ñu baax ngeen waaye man dama am xarit boo xam ne maax moom ñoo dëkkaale woon ca Ndakaaru mu dëkk ci Abdou Karim Bourgi bi mu dëkk ci Rue Fleuris muy Cheikh Tidiane Gadio xaw ma ndax ñoo naam déet maa koy nuyu maa ngi koy ñaanal yal na defal ñu tawfiq kon ñu jàng salaatul fatiha fatiha kursiyu qul wallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin fatiha yàlla may ñu ñun ñëpp ñu ñëwaat déwén fekk julli gi te li nu bëgg te mu gën ci ñu defal ñu ko bismillah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 والجهد وجه إليك منتهى لتغفر لما أعطيه من زلل يا رب حلي فلا أخفى عليك علي لم تخفى فيك قلوب صاحب الأزل ببابك الأعظم المفتوح يدخله كل أتاك فإن لم يدخل اليمن توصل ربنا ولا سل على خير براء من التفتيل والجمل سيدنا أحمد المحمد السافئنا آوي الفضائل عن مسي وأمثل الناصر الحق بالحق المؤيد بنسر الحبي بالنفاق بالملل وأنه المرشد الهادي الصفي إلى صراطك المستقيم وبذي الخلل ثم ألا لي رب ربنا حق قدره ومقداره العظيم يا بحق ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك المفلحون جعلنا الله من المفلحين جعلنا الله من المفلحين وخلينا امين جعلنا الله من المفلحين جعلنا الله من المفلحين jaalana allahu min almuflihin jaalana allahu min almuflihin jaalana allahu min almuflihin allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyumu la taaxuduhu sinatu wala nawm lahu xafidana allah xafidana allah xafidana allah xafidana allah xafidana allah xafidana allah alam nasrah laka sadrak wa wadana firaka alladhi qad dahrak wa rafanakum makanan aliya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 وعدتنا بإجابة فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا فأجبنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الفضل والإكرام بركم يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا yal na yàlla nangu ku bëgg jàmm yal na la ci yàlla boole ku bëggul jàmm li nga bëgg ci lu bon yal na yàlla xëpp ko ci sa kaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Voilà, nous venons donc euh, de suivre le sermon de l'imam Ratib de la Grande Mosquée de Dakar, Alun euh, Moussa Samba, euh, qui est revenu sur... Euh,